jërë ngeen jëf mbokki Sénégal mbokki bitim wa rahmatulahi wa barakaatu yéen ñi suivre lamb actualité lamb te di ko suivre ci télévision bu mag bi xam ne moo di Bawal TV vendredi le 7 août ci atum 2020 ñu xëy ñëw ak yéen ci sunu lamb seen doom seen xarit sekk ndaanaan fekk di fa avis yu am solo moo di bu Malika di xam le ne bi dox ci diggante ma xam ne day moom moo di fils de balle fils de balle day nekkul koo xam ne moom koy arrêté victoire waaye ki nga xam ne nii moom di Elton day dafa nekk machine boo xam ne nii maanaam di les deux nag moom ma toog di xaar waaye kii nga xam ne moom di Secosim dafa année balance waaye ki nga xam ne moom di Lamine Golo ci xatum sunu lamb itam ba tey mu dafa am loo xam ne nii daf ko ndax jàppoon na wax dëgg yàlla lamb ji waroon nañ ko mën a yóbbu ba mu nekk lamb joo doon waaye ki nga xam ne ni moom moo di expérience ci combat bi dox ci digganteem ak ki nga xam ne ni moom moo di Balla ak ki nga xam ne moom moo di Thiatou Rebeus ñu ne ci Liss Ndiago ak ki nga ki nga xam ne ni moom moo di Reug Reug muy xam ne ne combat bi dox ci digganteem guy gi ndam lu rëy la ci nar a ki nga xam ne nii moom moo di Bombardier waaye kii di ama neex ba tey wéy di andi ay témoignage ki nga xam ne nii moom moo di Papa Yade 2 dinoon xaritam doonoon soppam di wël wëllëreem doonoon di Balla Gaye ka saagante te bu jeexee jeex ñu wër di balonte ak ak di def yu ni mel yëpp dañ ko war a moytu waaye ki nga xam ne nii moom moo di guy gi ñu fekk ci xëtum record ñu fekk fa li nga xam ne nii moom moo di jalgati lamb kii di laj dëgër de lañ fa fekk mu xëy di wax ak nga xam ne ni ñoom ñoo di espoir yi naan leen booy bu ma kenn fa man combat VIP la bëgg te moom lay xaar bu jëree sax ma def li nga xam ne ni moom moo di saison balance day dinaa xaar ñi nga xam ne ni ñoom ñoo di VIP yi waaye xalaatuma bëre benn espoir mbokk yéen nga xam ne moo di Bawal TV day du kenn bu ma topp waaye ku joy dëpp la ko dalee Cees xombal bambay altundangal maak sew kabaak lañaar kër ak patar kër Ibrahima Sine actualité lambu seen doom seen xarit Seck Ndaanaan ñu